non man damaa génn rek su ma fa dama faral su ma xasee lal pare ñëw xool nuyu ko delluwaat sama place waaye bu may génn damaa fekk muy tàkk tàkk moom dira moom yàggut ndax diggante 9h 9h30 ci la jàpp xam ma courant la tàkk-tàkk moom day xaw a gaaw moo tax waaw waaw heureusement li xew mooy dagg nañu contrôle courant ba yegsiwu ci yeneen place yi courant moo ko war a taal yaa xam wax dëgg fa yàlla ay matériel électronique la ñuy jaay euh, ay télé ventilo accessoire dal ak i ak yoy dañuy jaay. donc boo nee commune Thiès Nord ne marché central donc lepp luy laal marché central day laal commune Thiès Nord donc du gërëm bu baax délégué délégué marché bi tierno parce que bama gissé gisee appel am rek après dama woté samay service xol lan mo xew marché parce que mom buma wowe rek damay xol na damay xamni marché central la donc si laa xam ni euh, am euh, mbokk bi nga amna na fa euh, magasin bi ngi lak donc jël nañu nak préfet mang koy remercier ak sous préfet jël nañu matuwaay yeb donc les sapeurs ñew nañu te actuellement maîtriser nañu l'incendie lui suñu taxawaay dal moy ñew and and ak ñom ci métit bi nga xamni dal na leen